jërëjëf mbokku internet yi ñu ngi leen di bëgg bu baax mbokk yi di am mbégte ak contentement bu mag mbokk yi nag ñu ngi jëm ci bis bu mag muy date historique nag ndax bisu 4 bu ndaw de ci wàllu làmb tuuni du ci bëree waaye nag ñuy bu baax waa Yaram Art Events Yaram moom moo ñu woo ci bisu le 24 décembre fële ci arène nationale diggante Gamou Gueye ak Tapha Mbeur waaye ki nga xamante ne moom mooy caatu Fora doomu jàmm gën si Kàmb Mbaaw tey moom la ñu fekk fii tey fii ci biir Fora. mu nga xamante ni moom moo fay dajeek ak ki nga xamante ni mooy Euchou doomu yaraax bi ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokk internet yi nuyoo réew mi. bisimilah aouzu billahi mina seytaani rajim bisimilah rahmaani rahim ginnaaw bañ sant yàlla ñuy julli ci sent bi sant suñu ñaari waajur waaw di sant waa koñ bi eh, di sant waa koñ bi yëpp mooy waa kër ñoom Mbaye ak kër Cyprien ak kër ñoom kii tata bi waaw di nuyu sama mbokk haalpulaar yi banndiraaɓe haalpulaar kala bewo mbimi mbimami mbeɗa salminma to mbawɗa wonde foof waaw di nuyu sama mbokk pëli ha ah, wa foray sama mbokk xeet yëpp nag awgal naaɓe bisnaaɓe waraaɓe waalo yi uruɓe booy yëpp maa leen booy jaagari yàpp yi grand frère yi maa di nuyu waa buntu ba jaagaru buumi yéegalkat yi wàcceekat yi yóbbu ko du seeraas yeeg yóbbu ko du client ak sama booy yëpp maa leen di ñoom di nuyu nga xamante bañ jàppee ba léegi bàyyiwuñ quoi ñu ñuy dooleel di ñu soutenir ci lépp suñu grand yi suñu limee dañuy juum mais ñu ñu ngi nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp. Eh. doo nuyu au chaud waaw sama adversaire maa ngi koy nuyu avant tout di nuyu suñu sëriñ suñu lépp sëriñ Sidi Mbacke alxuraan di ko woo ci làmb bu baax suñu sëriñ Fallou Fall. waaw sëñ Fallou Fall ñu ngi koy nuyu bu baax waaw di ko bëggee di nuyu tamit ñi may ñaanal ñëpp eh, ki ci mel ne Laay ah ak sëñ Ibrahima. ah Mouhamed fay Faye képp ku may ñaanal su ma limee damay juum di nuyu sama yaay Xadi ah waaw di bëggee jàmbaar yëpp di nuyu dëkk yëpp képp ku may ñaanal rek foo mën a nekk maa ngi bëggee di la siyaar. mais Thiat pour dire vrai est-ce que adversaire bu mel ni Eau Chaude mës nga ko am Eau Chaude boo seetaanee ay combat mhm. xool jaar jaar bi ak fi mu jaar Eau ci mën a bëri bi ci mën a xeex bi. waaw adversaire bu mel ne moom mosuñu ko am loolu moom dëgg la. parce que tamit moom beneen dynamique la nekkoon ñun ñu nekkoon beneen dynamique xëy na yàlla waaw moom mooy xool lu ko neex mu def ko rek xëy na suñu yoon yàlla moo teg loxo ba ñeeg si moom mais du morom suñu maas du suñu dara la waaw ni ma ko dawee noonu laay ñaan yàlla bu bis ba yàlla may boo nekkee ci yoon kay ñi nekk ci yoon bi faw nga jël leen pour daan leen parce que ñooñu ñoo nekk ci yoon bi faw nga jaar si ñoom jàll di ñaan bis ba yàlla may ma si kawam rek ci wàllu xeex bi naka nga ko préparé. waaw pare nañ lépp de waaw parce que surtout xeex liggéey nañ ci lu bëri bëri aussi noonu ñu contact parce que làmb du fii rek lañ ko préparé dem nañ feneen lu ci mel ne waa januar yi ay waa ñoojoor foofu lañ nekkoon di préparé ñu bisi fii affaire yi kon nag. ci wàllu mystique wala préparé ci wàllu bëri. non làmb lépp la amul looy bàyyi làmb loo baay mu feeñ. boo tollee ni Balla Gaye dem làmb ja te ngemb woo xale bu ndaw da lay toroxal boo tole ni cuuj ngemb mën ngaa daan ku làmb ak gàllaaj ak entraînement ak fit ak mën ñoo ànd yooyu bu ma teewul ci mbër pour man sa mbër des na xëy na nag am na ñu naan tamit mbër bind la waaye mbër tamit bind la loolu dëgg la waaye tamit jagleel la de waaw te loo foowee lu nekk rek bu nekkee ci yow faale woo kenn kon sa diggante au shoot mën nañ ci xaar xeex mën nañ ci xaar ru xaar runkum daje. waaw lépp am na ci parce que bëre la amul luñ préparé wul pare nañ lépp waaw lu ko neex rek bu bis baa ñun ñooy diriger moom mooy xool lu ko neex rek ñu defal ko loolu xam nga carte la waaw booy baatare yaay xool ku la neex nga fay ko. damay gis Thiatou Fora li ci ëpp ci ay combat bu arbitre sifflé du taxaw noo def mu jéem a attaqué est-ce que adversaire bu mel ni au chaud adversaire boobu est-ce que nekkul ni da nga war a bëri ak moom ci expérience ak xaar ndax ki ngay bëri dafa dangereux. non man doom du ma xaar man ba ne public bi man laay def damay xeex damay bëre te incha allah loolu laa gëm te bu bis baa damay am ndam loolu boo ko defee mbaa doo am mbetteel. non mbetteel amu ci. li nga mën da koy def daan dem sa yoon moom buy xaaraay mbetteel fekk daan naa ko bu yàgg bu soobee yàlla. Baye Balla da nga xew. Baye Balla ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ziar waa Fora waaye di ziar DG Wëcc sama xarit la maa ngi koy nuyu ak Babas Caatu Fora dañoo gis combat bi danga nga see wàññi poids ñu gis nga sa combat yëpp da nga naan indi poids ñu gis combat bi danga nga wàññi poids lu tax nga wàññi poids. pour xeex bi la wala pour bëre bi. non làmb moom ku nekk rek ak ni ñu lay préparé xëy na coach yi ñoo liggéey ak man nii rek mu demee nii mais pour man sax du wàññi poids. waaw xëy na nag yéen yéen a gis loolu waaw xëy na liggéey bi moo demee nii rek te bu bis ba incha allah dinañ ko appliqué ba ngeen xam ne waaw lépp doole la. mobilisation bi ñu doon gis ci est-ce nañ koo xaar ci arène nationale. incha bu ko raw mooy am bu soobee yàlla ndax ñu ngi dëkk ci dëkk bi waaw di dund comme ni mbër di dundee ci dëkk bi rek di ñaan ñëpp nañ ñu génn dooleel ni parce que nekkatul caatu fora fora nekkatul caatu fora jàmm gën booy bëri honneur ngay sauver mooy dëkk bi ngay demal kon nag na dëkk bi ñëpp waaw ñëw jàppale di ci woo gars yi jàppale ñu monsieur le maire madame la maire grand yi jàmbaar yi billaay ñëpp ñëpp ñëpp ñu ngi leen di woo. mais ngay bëre gis gars yi maas bi ñu def ah jàmba gën si kaat mbaaw rawatina euh, mbër yi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekk ku mel ni ñoom takkeek ñeneen ah ah ngay bëri ñu mel ni ñoom nga di dag geesu si ginnaaw su mel ni ñoom takkee ak champion yi nekk ci ginnaaw loolu lay def billaay daf may yokk jàmbaar ah, su ma gisoo gis ay taxe ay agu ñaase kolifay yille mbay ah ah ak kan ay Assane Nangal ay Baba Jaxal ay Mbengue Mboro mm-hmm. di ko ñaanal gaan li mu jóge Medina Tour yàlla na ko yàlla suturaal moo ko RC ngi amaat combat yàlla may la ndam ay Boy Souley Gaynde ay Zak ay Nees waaw ay 1 ikiri boska soobi ay Zé Baye Fall ay ñoom Zos sama gaay yëpp waaw ay Mbay Xadaar di ko ñaanal yàlla may ndam ñoom ñëpp ñi am waaw loolu daf may yokk doole barki alxuraan parce que tamit nit amul lu dul say nit amoo lu say mbokk te say mbokk bu ñu génnee dooleel da ngay gën a ñeme xam nga luy ragaloo góor. nga mm. geesu doo gis ku lay dooleel. loolu lay ragaloo góor waaye saa gis geesoo gis ku lay pompe fii am ku lay pompe fii doo ragal dara. barki maam Serap Fall te ñëpp a sama ginnaaw kenn yaay nii. ragaluñ dara. ragaluñ loolu. waaw di woo ñëpp di woo waa Diamaguène Fass Mbao Kër Mbaye Fall Tivaouane Kër Mbaye Fall ah di sant Darki Ndaay wëcci DG sama nijaay ay ñoom ah, ay duudu su ma limee sax damay juum ay Fallou Fodo Amel Naar Mor Seck moo ma jox yére bii ma sol waaw di woowaat gars yi nañ ñëw jàpp si bu baax dafa cuum sama nijaay Samba Idi Arouna ah Pam Aliou ñoom ñoom Amirou di leen siyaar waaw di sant sama benn xarit bu tudd américain lu ne lay def si combat bi yalmin bi mi ngi Amérique yónnee na ma xaalis bu bëri hmm. mook jabaram faama maa leen di sant di leen gërëm di wax gis naa lépp di nuyu Madaar sama benn xarit bu nekk Amérique ak jabaram waaw di sant ñi may ñaanal waa Saloum aw ma seen fay bilaay waa xaw ga Thiat Fora lan ngay wax sa adversaire mu ngi jàkkaarloog yow di la seetaan lan nga di ko lan nga lii ay Babacar defarkatu tise di nekk jàmm gën yëpp maa ngi sant di leen gërëm ñoom ñëpp su ma limee damay juum ama ku ma bàyyi waaw promoteur bi nañu xaar rek ñun na nawoon fa woon rek ñun dañuy ñëw duñ neexal waa ngay ay Habib Jili Seck sama grande grand tëggkat daf maa tëggal open presse bi fayeguma ñaar dërëm barki maam Serafal loolu dafa rëy yàlla na ko fay xol ay lala gaayab ñu ngi seen ginnaaw di la sant yow Fallou billaahi am na lu rëy loo ma defal loo xamante ne jarul sax ma koy wax ci média xamante ne dama lay ñaanal yàlla na la yàlla defal jàmm defal la tawféex bàyyi baala noonu journaliste yi fi ñëw yëpp billaay ay ñoom Bougar bàyyi seen yitte soxna si bàyyi faale ay leen di sant di leen gërëm di leen wax na guugi na li ñaa bi da di woowaat gars yi ay laay waa fora booy awgal naawee ñoom Isma ay di sant tamit ñi nekk si jeel a ah di leen ñaanal ñoom ñëpp yal na leen yàlla génne si jàmm Thiat Fora waaw bi ma la posé woon sànq da nga koo daw lan ngay wax adversaire bi nga jàkkaarloog moom wax ak moom waaw adversaire bi leen laa koy wax mooy mën nañoo taxawee taxawaayu muuma rek ñu koy liyaar fu ñu ko jëmloo mu jëm fi <laughs> billahi bu soobee yàlla waa di ah, waa Yamanaga